bi noppi pour wuy ji pour am ci espoir ñu annoncé wàlla ci règle yi ci biir ngir waajal élection yi nekk suñu kanam ak charte yi ñuy tënk mm-hmm. mais mënoo woote dialogue ba noppi singali ñenn ci opposition bi duñu am jàmm duñu am salaam mm-hmm. du ñu def manifestation duñu ñu métitlu du ñu def dara tey nga tam kii suba nga tam kee ku bokk lu xalaat jàppe ko benn adversaire boo xamante ni adversité amatul mais mais mais mais jéem a jéem a dugg ci caay nit ki éliminé ko xam nga bu ñu demee ba bu ñu demee ba Sénégal nit bokk ci élection présidentielle après ñu xëyaat naan bon est-ce que candidature am dina valide wala du valide euh, indi ay tënk-tënk comme ay parrainage yi xafu di applaudir te Sénégalais yëpp ŋàññi ko donc yooyu dafay poser problème dialogue bi dikkuta am amoon na daaw xaw ma daaw jëkk avant ñu dem ci élection locale ak législative yi. Mm-hmm. la ci tukkee woon gis nañu ko am na lu luñ ci respecté am na lu luñ ci respecté wul. Mm-hmm. Euh, bu ñu woote waatee dialogue foog ñu teg charte yi nga xam ni moom la ñuy waxtaanee même dialogue boobu ki koy jiite wax na doon ku opposition bi di ànd. comme bu njëkk bale Fama Ibrahima Sagna mais ñëpp ñu ñëpp néewuñu woon waaw parce que ñu bari ci opposition bi dañu gisoon proximité am ak président Macky sàll donc war nañu xool koo xamante ni bii dafay neutre koo xam ni féetewul fenn ci wàll politique pourquoi pas waa société civile comme ay ñoom et cetera nit ki ci dialogue ba noppi singali ko nañu bàyyi singali opposition yi loolu donc mooy seen problème ñoom ñoom ñoom waa nguur gi dialogue bi dialogue bi benn pàcc mhm. gëwuma ko man de ci ci jëm ci dialogue bi sax laa bëggoon interpeller xamoor mhm. euh, balaa ñuy dem euh, gis nañu euh, sànq ñu koy wax daanaka tey jii bu ñu fàttali ko 2021 jamono jii lañu waxoon ne ñu génnee li nga xamante moom mooy pare parrainage CEDEAO daal di ci wax gouvernement bi joxoon ko délai 6 mois alors tey loolu bokk nekk ab pàcc bu. nar am importance. yaakaar naa ne taal naa ko de. waaw ah, c'est bon mbaa ñu ngi dégg. Mhm. waaw ngeen ngeen ngeen baal ma de. Euh, man ma doon wax ne euh, li nga xam moom mooy parrainage bi nar na nekk pàcc bu am solo euh, ci dialogue boobu est-ce que mën nañu jàpp ne peut-être dialogue bi bu ñu ko toogalee bu ñu ko toogalee laa wax mën nañu. éliminer parrainage bi ci li nga xam moom mooy élection présidentielle yi ñuy dëgmal. waaw euh, dégg naa ñaari question yëpp <coughs> bon bu njëkk bi contribution la wante contribution wu Mansour bi jàpp naa ni <laughs> mooy condenser li ñuy dégg ci kujjee gi yëpp euh, ñaari mbir. Hmm. bu njëkk bi mooy. Euh, Sénégal démocratie démocratie authentique la loolu kenn mënu ko naataat benn euh, ñaareel bi mooy traditionnellement balaa ñuy dem ci élection. mais ci histoire ci histoire. mais nga jàpp nga ma opposant xanaa. non non non non non non non non non non man je raisonne pas comme ça te li nga def c'est exactement ça le rôle du journaliste parce que man dama fi ñëw am beneen position. Mm-hmm. yaa ngi dégg yow sa question dafa war a refléter li nga xam ne nii mooy nekk ci mbedd mi. effectivement li nga wax mu am na ñu ko xalaat Sénégal moo tax dafa may permettre aussi mu indi leeral. ni loolu méngoowul ak li li li li am deuxièmement donc man non non non pas euh, vraiment ñun politique ni ñuy wax yaata nañ dënn am ouverture d'esprit et tam ci tolérance ak ci lépp accepter mën a dégg lépp parce que mooy li ma wax opinion différente dañ koy nangu su dee da ngay politique mënoo ne da ngay ba pare amuloo doo nangu doo ñëpp ñëpp ñëpp unanimité yàlla sax unanimité amul fenn yaa ngi dégg donc kenn mënu ko am lu du mba ba mat waxuma la nag doomu aadama donc loolu te bu ngeen bokkee société ñëpp bokk ko da ngeen war a waxtaan donc deuxième bi mooy bu euh, buñ ciy dem muy wax nga ko daaw waxtaan nañ effectivement parce que élection locale lañ jëmoon ak élection législative donc ñoom dañoo nangu ñëw toog waxtaan ñu am 21 point ci 21 point yi 19 points d' accord 19 point yëpp teg nañ ko ñaari point d' accord moo amul mooy ci bulletin unique bi ak li nga xam ne nii chef de parti euh, ak président de la république ak chef de parti ñaari point yooyu kese la ñu appliqué wul ci dialogue bi mais li ci des yépp dañ ci ànd li arrangé pouvoir bi ak arrangé wul pouvoir bi bul fàtte ni dialogue boobu ci la opposition obtenir élection du maire au suffrage universel mm-hmm. arrangé wul pouvoir opposition la gën a arrangé benn ci lañu am ci waxtaan bi pouvoir bi parce que soo xoolee code électoral bi parrainage dafa bokk ci élection local ñu indi consensus parce que dañu d'accord ci règles yi ñu dindi ñu ne dispensé nañ élection locale yi ñu dindi parrainage bi ñu d'accord ni élection législative parenage bi seuil bi dañ koy wàññi loolu moo permettre ñu dem ci élection locale ak élection législative mhm. de la même façon ñuy fàttali bu ñu dem élection présidentielle bu nga xam ne nii mooy élection bi gën a am solo ci réew mi dafay am solo ñu ñëw ñu toogaat ñu waxtaan ba déggoo ci règle yi parce que jeu bi balaa muy neex nit ñëpp d'accord ci règle yi donc loolu ñu dégg muy muy ñëw ci question bi ci parrainage bi euh, CEDEAO waxul ni parce que Sénégal dañuy souvent jaxase wax ji CEDEAO musul wax ni dañuy supprimer Séné. dafa ne il faut revoir. il faut la revoir la Cour de justice de la CEDEAO. Oui. ordonne à l'État du Sénégal. Oui. de supprimer la loi sur le parrainage pour euh, ci wàllug euh, li ko waral mm-hmm. ni loi boobu elle porte atteinte au principe de la libre participation aux élections te xam nañu ni tënkum CEDEAO mooy libre participation aux élections donc loolu këyit la bu CEDEAO te cour de justice kay loolu mu tudd li mu wax moom leer na mooy ñëw mooy ñëw sur les modalités mm. du parrainage parce que les moraliser parce que le principe du parrainage partout moo dem états nga dem France nga dem Angleterre partout le parrainage di dégg parce que par parrainage genre filtre la buy permettre au moins ñu ñu ñu xam nga am une légitimité pour dem élection présidentielle parce que sinon dañu am élection présidentielle cent loolu tamit après matériellement kenn mënu ko organiser donc ñu déggoo ci règle yi mooy ci modalité d' application loolu def nañ ko ci élection législative pour jàmm ak résultat bu mu jur donc élection présidentielle suñu waxtaanee président wax na ko ñoom d' accord ñu si parrainage bi wala parrainage bi modalité d' application yi day indi problème euh, CEDEAO cour de justice nee nañu revoir ko. d' accord nag état du Sénégal d' accord. pour ñu waxtaanee ko maintenant. cour de justice dafa ordonner la fin. du système de parrainage mënul mënul ordonner la. non non l' état du Sénégal est un état souverain. après mais moo signé convention. donc moo bokk moo signé convention bokk. li am solo li am solo. mooy assurer la libre participation et que cette libre participation là et ces règles mu def l'objet de consensus des acteurs. bu amee woon nga ne deux mille vingt deux mille dix neuf ak deux mille vingt quatre euh, ni ñu amale woon parrainage bi deux a mais loolu lañ leen woo. président nee leen ngeen ñëw ñu waxtaan ñu waxtaanee parrainage bi est ce que dañ koy dindi que dañuy indi parrainage des élus que est ce que loolu xam nga nag bu fekkee ne yow da koy kaas ñu ne la kaa ñu waxtaanee ko xool lan la ñuy def ci parrainage bi mais ñu waxtaanee. est ce que amul lu làpp ci ginnaaw. non xam nga nag xam nga. c'est ça bu fekkee ni non euh, buñ nee dialogue xam nga dialogue ñaar ñoo koy def dialogue mooy waxtaan ci wolof euh, bu ngeen nekkee ay adversaire compétition euh, bu taw compétition di constitution ñu waxtaan yéen ñaar ba d'accord ci règle yi ñu dem ki war a arbitrer mu arbitrer mais mënoo ñëw ñaaw njort parce que président mënul appliquer loo xam ne ni teg na ci table discussion bi te nit ñi d'accorduñ ci maintenant bu fekkee ni nit ñi sont de bonne foi mais ñaaw njort mais xam nga di ñaaw njort bi man si je me mets à la place d'un opposant radical wala koo xamee ni euh, yaa ngi am tuuti dut waaw nga ñëw dégg président ne ni bon de toute façon dama voté ku ñëw baax na ku gedd lu mm-hmm. mu ci teg sa ay xaw ma sa mais am na loo xamee ni man dama naan mais attends kii excuse-moi le terme mais ku yàpp non. Euh, loolu tontu boobu loolu mhm. tontu la. Mhm. pour peut-être xale ak euh, yenn acteurs immatures yi nekk ci. Mhm. langue politique tontu en avance. parce président loolu euh, gedd moom. ah ah gedd gedd ku gedd sa yaay ay. buñ ko daan wax xale loolu neexal la parce que ci bu njëkk ba eh, xale buy gedd mooy sa yaay moo aye sa yaay boo geddee mu mu neexal la dencal la boo mënoo mënoo di woo euh, dialogue di ko wax loolu waaw ah, ah, ah, mais mais je pense que de façon plus sérieuse le mm-hmm. président il s'adresse aux aux démocrates sincères mm-hmm. day adressé wu aux républicains mm-hmm. day adressé wu ñi nga xam ne ni xam nañ intérêt Sénégal moo leen ñor ils sont à la hauteur des enjeux Euh, te bëgg nañ jàmm ak salaam ci réew mi parce que bëgg jàmm ak salaam ci réew mi suñ la wooyee waxtaan di nga ñëw waxtaan doo indi préalable. Mhm. doo indi leneen te d'ailleurs président ku gedd sa yaay aye boobu am na solo parce que du ci ci ëllëg si gis nañ ñoo xam ne nii euh, vraiment euh, bu ñu dem nañ élection. Mhm. mënuñu am benn député commencé. ne ñoom du ñu dem wuyu ji donc le président il sa il s'adresse ko bëgg a wax noonu ko bëgg a wax ku gedd sa yaay ay nag ko bëgg a wax xam nga ku dem ah. amul benn député foofu ah ku dem élection amul benn député foofu ko bëgg a wax non <laughs> liste yi dem élection am ñu député bari nañ euh, te ñu dégg leen tey ñu nekk euh, euh, Euh, candidat à l' élection présidentielle encore une fois nañ ko waxante gis nga si Mansour Birame. xafoor nga tënk foofu rek ñu wëyandil xibaar yi. waaw tënkal tënkal ci tontu boobu élection mhm. présidentielle dafa am solo ci mhm. réew. Sénégal mënoo xëy réew moo xam ne 17 millions habitants lu mhm. mat 300 personnes ku yeewu rek ne la président de la république laa bëgg a doon. loolu il faut ñu normer ko boo demee Amérique bële ñaari nit ñooy xëccoo présidence. France mënoo dem élection présidentielle ba mu am lu ma ëpp fukki candidat mm-hmm. presque quatre-vingt quatre-vingt millions de d'habitants lañ donc il faut que aussi démocratie du anarchie ah, mun a ànd mm-hmm. euh, euh, ànd ci ay règles euh, acteurs politiques yi yor discours politique bu responsable parce que mm-hmm. politique aussi éducation à la citoyenneté la li ñuy wax citoyens yi mën ko déglu mun a tànn tànn boo xam ne nii tànn bu leer la tànn bu wóor la pour réew mi mais Sénégal jàpp am détenu ku fi mhm. ku ku jalgati yoon moo fi am mhm. mais amul koo xam ne nii jàpp nañ la ci sa opinion politique mhm. mais bu fekkee ni yow da nga taal ñu jàpp la taal ñu ne non préféré marche warul am nga ne damay marche par force mu neex mu naxare damay marche mais ñu jàpp la wala jóg ni dañuy taal réew mi wala damay rey président wala di saaga loolu nag ah wax dëgg yàlla bu nga euh, ci ah. bu fekkee da wax sa gis-gis noo wax sa gis-gis amul kenn kuñ ci jàpp Sénégal amul kenn kuñ ci jàpp Sénégal parce que gis nga verrou bi ñu téye ñun ñi ñëpp ñu nekk en sécurité mhm. mooy police mooy gendarmerie mooy justice 1960 mu ngi fi président Macky Sall fi la ko fekk fi la koy bàyyi policier ak gendarme ak magistrat yi fi nekkoon ak Abdou Diouf nekk fi mhm. ak ñoo fi nekk ak Macky Sall ñooy continuer nekk fi parce que ils sont protégés par leur corps d'accord xam nga léegi te ñiy ut nguur. Mhm. ëllëg dañu ñaan yàlla yilif ñooñu. Mhm. donc dañ leen war a cëral war leen respecter. Mhm. waruñu jeter discrédit ci ñooñu ñi ñu fi jàpp parce que politique président chaque jour ñu saago ko kenn jàpp fi nit pour article quatre-vingt amul ku nekk actuellement ci kaso bi. ci article quatre-vingt ñi nekk ci kaso bi la plupart c'est outrage à magistrat. tentative de jeter du discrédit sur la justice te gis nga bu ñu demee ba suñu justice mu nërmeelu ñu ñii ñëpp di wax. nekkuñu en sécurité te jàpp ma ne dinañ topp fii am jot. bon ñu wax moo assemblée Mansour ak euh, yoo xamante ni bii faaw Sénégalais bi parce que bu ñu wax justice aussi. Mhm. citoyen yi ci boppam moo tax. bu fekkee jutóo yi gis nañu ci ni justice di doxalee moom moom am euh, bu leen bu leen arrangé justice baax na bu leen arrangé wul. mais fii ministère de l' intérieur recalé wul seen liste élection législative. justice moo leen delloo si compétition bi. Mansour ñu yemale ko foofu ñu yemale ko foofu instrumentaliser justice moom mel noonu posé ay questions ci justice bi leen justice joxee seen liste ne day def élection législative wax nañu justice amul ci réew mi. coupé leen ma micro xafoor euh, ak ak kii waay. maa suuf nañ leen coupé. coupé leen ba ñu ñëwaat ci ñoom. Euh, assemblée la ñuy dem euh, Biray mu wax ci ndaje bi nga xam ne tey jii Amadou Mame Diop war na ko jiite foofu dajale ñi nga xam ne ñoo di député ya fa nekkal askan wi mu nekk nag loo xam ne xaaroon nañu ko ndax ñi nga xam ñoo nekk ci kuje gi bari na laaj yoo xam ne taxawaloon nañu ko toll na ci téeméer. ak euh, juróom yoo xam ne daal jàpp nañ ne euh, fukk ak juróom ñett dong lañ ci am ay euh, tontu fi mu ne Birahim ba sax ki nga xam ni moo di Guy Marius Sagna fësale dem ci assemblée ak tànkam ngir fësal la ko naqari ndax jàpp na